mbër gàlle yaay mbër gàlle fanaan mbër gàlle yaay mbër seen internaute de Kewel Info ñu ngi leen nuyu di leen ziar tey ñu ngi ñëw seet champion Jacob Baldé donc mu amoon combat am solo ci carrière dimanche bi ñu génn bëree ko donc ñëpp gis nañ anam yi nga ko bëree ak li ci xew am na yoo xam te xew na ci combat bi polémique bi bëri ginnaaw combat bi coow li continué di am mooy diggante yi nga xam moom mooy Papa Boy Djiné tey moom lañ seet si fas yéene waxtaan ak moom ginnaaw combat bi la dundee li nga xam te di nuyu ñëpp à waaw Kewel Info waaw di nuyu waa diaspora bi ñëpp nuyu sama jabar di ko wax victoire bi moom lañ ko may waaw di wax seen yaay tamit yàlla yàlla yokk ay leeram taas ñu si barkeem yàlla bàyyi ko fi ba si kanam kanam ak mbooleem kuy yaay ñaanal seen papa fu mu tëdd yàlla ko sufa si kaw waaw di ñaanal sama waaw di ñaanal maam di ñaanal mbo mboolem woy dawlu yàlla ibbi leen buntu àjjana yi yërëm leen te yéexee ñu ñu rëccu sax lu ñu doon tegee seen tànk si àdduna bi lu si mel ni papa mu Moussa Lo Jules de Junior sama maam maam Mbaye Guèye maam Double Less maam maam góor gi mboole booy dawlu rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla yërëm leen te yéexe yëkkati kàddu bi tamit <laughs> waaw dina ko yëkkati incha allah sànq su ma la juumul say kàddu dama dégg nga wax victoire victoire dañ la ko jox wala nu mu demee ah na loo xamante ne jarul laajte sax waaw gëmmal moom jarut a gumba Mmh. yaag sa manager comme li ma bëgg li ma bëgg a xam mooy instant actuellement yéen ngi topp li ngeen war a def def ngeen ko CNG pour victoire bi wala. waaw ah, moom lu mu war a dox mu ngi koy dox manager bu mag la xam na lu ko war bu baax a baax mu ngi ci li mu war a nekk waaw loolu ba loolu moom moo tax duñ ci wax bàyyi nañ ko ak moom ñun lu ñu waroon def def nañ ko mooy final. alors damay revenir tuuti rek ci waajtaay parce que keroog wax nga ko combat la am te amoon solo trop ci sa carrière mu doon combat capital tey booy revenir ci préparation bi yan coono nga ci daj. dañ leen ci ay coono yu métti sax dañ leen ci ay coono ba <laughs> waaw te doon leen feebar durant ay semaine wala ay huit jours neuf jours yoo xamante ni pour ñu jug sax dañuy yëkkati mais tawféex kon dem leen ba yàlla def ñu reprendre suñu entraînement ba combat bi ñëw ñu bëri ko ci jàmm. ñu ngi si jàmm dañuy sant yàlla bu baax macha allah. père ban moment la intervenir dernière semaine préparation bi wala. réglage bi dañu ba suba si la ñëw mais ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax taw féex la woon. keroog bu ñu la déggee li nga junj dafa mel ni feer bi misik génn ci parce que da nga junj rek mais soriwoo ci. <laughs> fan laa junj noonu. sa ah non dama ñu ngi sant yàlla rek xam nga waaw yoo xamante ne moom matut a wax dañ maa fay fay ko waaw lu waroon am na ñëppay feebar ñu ko ñëppay feebar dama waroon dal période boobu dal na ma yàlla teggil na ma ko maa ngi waat ci sama bopp macha allah. waaw mais ku nekk xam na xam na mbër psychologiquement tey buñ bu bu yenn xewee rek da koy perturbé tey moment yooyu nan nga ko doon dundee ak sa ak say mbokk. non man dara perturbé ma dara mënuma perturbé pour làmb rek may di dugg fu nekk waaw muy loolu nag. Hmm. fi may waxee mooy waajee ba mu benn semaine sa xaw a jege est-ce ma ñu moo gënoon garaaw bi fuuf. yàlla suturaal nañ si dem nañ si jàmm ñibbi seeg jàmm bi tamit même chose mhm, dañ si sant yàlla rek waaw. Sénégal yëpp ni Jacob combat bi mu bëree coow li mu am mosu koo am ci làmb te loolu de loolu da lay jox raison li nga li waraloon nga jël combat bi wala. dëgg la ndax looloo tax ñu jël combat bi. combat bi jëluñu ko pour lenn ndax Papa coow dong lañ soxla woon amuñu leneen loo xamante ne soxla nañ ko si combat bi yow xam nga bu baax amul loo xamante ne yow ba mu jëlee combat bi sax yow war nga toog ni kii la mu wax dugal si bi. ku tegle quatre défaites xaw ma cinq nga jël ko kon xam nga am nga loo bëgg coow li dong la ci bëggoon wax dëgg fa naa bu baax a baax a baax a baax moom suñu la borom baax la waaw. na li ci bëggoon am nga ko. lii lañ ci bëggoon. <laughs> alors ñu ñëw keroog ni nga ñëwee parce que man souvent da nga may jaaxal bu ñu gisee Jacob nii neex a ñëwee mel ni xaru yar mais boo duggee làmb beneen nit ngay doon lan mooy waral loolu. waaw loolu lay mbër mbër juste nekkul ay yëfi bandi nekkul ay loo xamante ni da ngay foo nekk di wane ni mbër laa def ay yëfi dof ak yooyu mbër noobu la mbër nit la mbër intellectuel la mbër ñun ay responsable lañ mbër lu bëree bëri mbër mën na ko si àdduna bi lu bëree bëri mbër mën na koo lijjanti ci àdduna bi kër yu rafet yi bëri yi gis nga mbër yi ñoo ko oto yeeg lépp mu noonu mais nekkuñu fii di wane ay lii ay nit simple la nit ordinaire yoo xamante ni dara duñ dépassé xëy na coow li bëri na ak lépp mais li ñu war nekk ñu ngi ciy duñ si mës a jóge mhm. Jacob ñëw nekk ci combat bi concentré wu mais nga boole ko ambiance boo xam te ne ñëpp la jaaxal keroog sa yaram dafa xabtalu waaw <laughs> ñoom dafa leen doon wan ne luñ foog awul rek <laughs> waaw mooy loolu taw feex rek gars yi nag ëmb ma ñu si mel ni ama malo seras mafia ama bi ñëpp ñëw yëngal ba mu yëngu xam nga loolu rek bëgguma ñuy nagam ay alaaji mbay fii du bëgg ñuy taxaw di nagam moo tax may yëngal stade bi di ambiance ak yooyu waaw. am na benn moment say adversaire du ngeen dajee ba nga bu wax ko moment boobu tàngoon na trop. waaw tàngoon na <laughs> mooy loolu waaw boobu yëkkati kañ laa ko def bu wax <laughs> mooy loolu. sant yàlla rek.

xam ne kii moom fii ba suba su nekkee dama koy déglu rek du def dara pare si laa risqué nag ba naroon see sax daaru fekk foofu mu ngi jàpp fu baax sax macha allah mais lu ñu naan forcé baaxul pare laa ñëw ñu xaaral ma xool nan laa aborder combat bi taxali ko kii dem sama yoon far yàlla nag blessir sax xaw ma fan la jóge bilaay mm-hmm. amul xaw ma sax fu mu jóge mm-hmm. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax mm-hmm. waaw comme comme may nañ ñu yégale ko jàmm rek Euh, gis nañ action bi nga xam ne tey mën nañ ni filé na la ba ba nar la nar la daan nga génn Jules Baldé ñëw am mel ni ku xaw a sa kaw. lu lu teg sama gàllaaj li wax looy def ni man ko non non sama téere yu mu téye téere yu ma tax a bëri téere yu mu ko téye moo baaxoon moo tax mënu woon def dara loolu kese la woon. loolu kese la woon. Hmm. mais trop que papa bettu la parce que parce que mun mun nañ jàpp ni Jacob psychologiquement jàppoon nañu adversaire bi tey du yàgg ak moom kon combat bi ni mu diiree li mu la teniree non Papa surtout Papa ngemb pare lu muy war a pare nga naan bett man lu ma war a indi dama koy indi gisoo ko benn yoon fu mu taxawee. ma sës di dox ci kaw muy daw gauche droite di arrière di dugg ci ay saako yu kenn xamul malgré taxaw na ñu échanger des cours yooyu mais su ma bébee rek day dem nga bagarre à distance bokkul ak koo xamante ne da nga taxaw ak moom. Mm-hmm. du ma jël benn risque di ko songu di daanu <laughs> mu ngi dooru mais ba ñu demee ba war ko jàpp daan ko jàpp nañ ko daan ko lépp si dogal yàlla la rek. Hmm. blessure bi nee nga yëgoo ko xamoo lan moo la gaañ mais ban moment nga sentir ni sa loxo am na lu la ci metti wala mu ngi naaj. sant mosuma sant sama loxo am na lu ma ci metti mu ngi naaj arbitre bi moo gis ni sax sama loxo ngi naaj. Hmm. mais man santiru ma ko gisuma ko arbitre ba ma ko wanee sama ngem bi laa diw deret bi. mooy loolu pour rek bëgg bëri. Hmm. mais saa yaram bee tàng moo tax deret bi doon circuler tellement mooy loolu. parce que polémique bi bëri na ci ñu naan loxo bi dafa teppeeku dafa xar lan moo ci nekk réellement. loxo benn dagg-dagg la woon sax lu may waaj a contact nii moo tax ma taf ko si élastro bi pour suuf éviter suuf si waaw. loxo mun na contact nii. moom laay contacter léegi incha allah rabbi ndax Bozil mooy am combat te dañ koy jàppale si contact yi parce que moom dañ doon jàppale si contact mm-hmm. mooy loolu. Ah, parce que adversaire bi li ñu gën a ñu ngi naan lamb ji waroon egg foofu waroon nañu arrêté combat bu yàgg parce que Jacob dafa blessé mun nay rafet rek nañ ko nay rafet rek xam naa ay wax yoo xamante ne moom matuta wax sax waroon nañoo bëri bëri nañ jeex na jeex na saa dañuy xool leneen lu nekk seen kanam mais pas ay détails ñu bànd loxo ñaw loxo. Mhm. ñu bëri neen Jacob keroog dafa andi bakkan teg bakkan indi njàmbaar parce te ne tey yenn blessure bu ñu ko amee duñ jël risque du bëree mais à chaque yaa ngi wane ne yow yaa ngi ci biir làmb te da nga boo continuer combat. saa man sama combat mos ngaa gis sama combat boo xam ne laaluma aar du ñëwaat. mën nga ko gis booy jobaas bi gënoon garaw sama bët bi gisul te bët a gën a sensible loxo te teewul bëri naa daan ko bàyyi ay wax yooyu ñu xool leneen rek. mun na dafa yàgg ci yow. <laughs> ay samay samay cinquante deux ma am ay mbër leen ah. lu leer laa pël bi soose geeg bay nunkee joolaa gi kon waaw saa yi leer laa lay wax. mun nañ mun nañ action bi di coow li parce que mun nañ boobu décision loo xamante ko jël parce que gis nañ Ama ñëw waxtaan ak am lu mu la déy Mawou lan la la wax ba nga ñëw rek daal daal accéléré ci adversaire dana ma kii daan ko waaye bu ñu yàggal fii loolu rek la ma wax waxul ak bi sax man la ñëw waxal dem waxul kii médecin bi man la ñëw waxal ne ma lan la man ko non man lu ma gaañ sax xaw ma ko mais kii arbitre suy sifflé ma koy daan mu ne ma sës ko daan ko man ko billaay dama waay soo arbitre bi sifflé laa la ma koy tëddal. parce que gis nañ bi nga ñëwaatee Jacob bi. mooy loolu. léegi ñu ñëw ci fee yi bi nga nan la demee wër ndomba bi da nga daw ko mu bañ da nga def ba wër ko ndomba. moom dama kaa faqat ko tëpp wër ko ndomba. ko wëree ndomba la moo tax bëriwoo mais yu gars yi saaga yu ma saaga dafa sama sama confrère ñu ngi naan ci waa Kër Fallaye ñoom daal affaire soxor dañ koo bëgg. non oh, làmb yëfi góor la de. Mhm. ay xare la waaw. làmb sa maam da ko daan wax soo mënee bëre te amoo fit soo yoboo toog soo mënee bëre amoo doole soo yoboo toog soo mënee bëre amoo mënoo xeex soo yoboo toog mhm. nee na moom ñàkk fayda daal lay bañ waaw. parce que Jacob bi nga ko wëree nomb ñëpp xam nañ am nga technique bu ko daan mais lu tax nga privilégié dóor yi moo ñu jaaxal. dama ko bëggoon dóor ba loxo bi ñu naan day métti. cinquante coups ba cinq waaw ba cinquante yi jeex ma dóoraat ko dóoraat bi cinquante coups ba pare doo koy ñëwaat ci kanamam doo koy xëcc. léegi bi muy intervenir ci góob dugg si bett na la wala bettul. non peut-être bett na ma mais sama réflexe ba muy ñëw gis naa ko ba muy daw di xàcc këdd bi moom maa ngi koy gis. Ah, waaw mais moom peut-être da ko def par émission. waaw wala lu mu jegee papa ak yéene bu mu yéenee papa. ak fu ma positionné woon papa tamit mënoon naa gaañ gaañ yu métti dóor mënu ko mënoon naa kaa dóor ba gaañ ko moom lu ñu def métti lu ñu ko dañ ko si sant bu baax a baax a baax a baax a baax te di ko wax nit moo matul moom du ko dugaloo ci géew bi sax xamu ko wallaahi ndax xam nga ñun ñëpp ay nit leen ñëpp ay juum moom lu ko dugaloo ci digg géew bi xamu ko ñu ngi koy masawu bu baax a baax a baax ndax jël na si ay liif yoo xamante ni mérité wu ko woon sax waaw xam nga rek. nit poros dafa soof dafa dafa dafa dafa doon sensible far dafa métti gis nga ba mu dawee dal sama kaw ama jóge na fële ñëw ci kawam détail yooyu yëpp mais xam nga ñu naan bëgg bëgg ak jege rek moo xaw a métti. parce que réaction ama taxaw tuuti parce que ñu bëri tey mbaj ñi ko bëgg sax ñu ngi naan rafetlu wuñ ko tey lan ngay qualifier réaction am. non réaction bi c'est humain xam nga ñëpp ay nit leen. yow. rëy rëy comme nuñ koy defee rek waaw. mu ngi noonu sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama xarit yu may àndal sama yaay jatugee tamit mu ngi koy sant bu baax mère Adel ñëpp Fabi Balde tamit aw seen fay maa ngi leen sant bu baax a baax di leen di sant ñëpp di gërëm ñëpp mhm. voilà jibi mi ngi noona ah, mu nekkoon Jacob Balde tey moom lañ ñëwoon jabar tamit <laughs> te combat bi oui mu ko làmb ji moom laa ko may di sant tamit waa famem baax a baax a baax a baax moom moom mention spéciale xam nga am jabar mu nekk sori dafa métti en plus mu dalal xelam ci lu bare bare bare bëri waaw xam nga kooku moom mënoo lu di ko sant di ko gërëm waaw mu ngi noonu mais ñu ngi sant yàlla bu baax baax macha allah. dara ji waaw mu nekkoon Jacob Baldé tey moom lañ seet si woon donc bi mu bëree ba ba tey donc coow li bëri na polémique yi am ay leeral yoo te aussi tey leeral na ko andi li nga te moom mooy version la sa version des faits di sant tous les fidèles de Kewel Info ak le grand mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay